lay ziar di la ndokkeel soxna si macha allah. nga ñëwoon teew ci appel bi tey lan nga ñu mën a wax. xanaa am mbégte am bégte ci jaww ji nga xam ni jaww leer la suuf sii nga xam ni suufu leer la ndax fan yii yëpp benn kàddu ngay dégg mooy laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi si na limaamu nag woote mbii dafa jéggi dayoo ndax bi mu wootee ak léegi téeméeri at la ak ñeent fukki at ak ñetti at li ko topp ci mbooloo at mu jot muy gën a yokk kon wootele boo xam ne lu ñu war a toogaat defaat taxaw seetlu la moom woote Seydina Limaamu bii ndax mbir maa ngi gën a yokk te benn angale dafa wax ni lu dul dëgg mënul weesu téeméeri at waaye li gën a doy waar mooy Seydina Limaamu njàngaleem Seydina Limaamu li muy njëkkee ci njabootam mooy sa ruux lay tàggat daan wax ni xale yu liir yi sax bu ñuy dem di zikkar yi nañ leen yóbbaale daan wax jigéen ñi bu ngeen di togg di leen tudd yàlla su ngeen di fóot di leen tudd yàlla su ngeen toogee wéet di leen tudd yàlla te tudd yàlla day dundal xol moom la sunu góor gi Cheikh El Hadji Abdoul Aziz wax ni zikru ilaahi tudd yàlla mu ni xóotum dund la lil xulubi ñeel xol yi nee na xol nag boo ko dundalul ci tudd yàlla xol day dee mara ñoom da nga yëg ci ñoom baax fii kër Seydina Limaamu da nga yëg ci ñoom yaatu da nga yëg ci ñoom tedd nga da nga yëg ci ñoom xoolal sëriñ Abdoulaye Thiawlaay tuddi na sëñ Mansour borom daara ji doom tuddi na sëriñ Cheikh Tidiane si doom tuddi na sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma doom tuddi na Alaaji Ibu Saaxo doom nga xam ni ñoom tedd nga ak mbaax gi na ci ñoom loolu kenn xamul lu mu doon kon nu ngi ñaanal xalifa bi sëriñ Mouhamadul sëriñ Mouhamadul Muxtaar mu yàgg fi te wér heure laa ñu tedd ko dëkke waaye thème bi nu indi ren mooy jàmm ak développement kon réew mi dañu ñaan yàlla def fi jàmm waaye soññaat ndaw ñi ñu gën a xam suñu bopp ndaw ñi gën a xamaat fi ñu teg suñu tànk fu mu doon ndaw ñi gën a xamaat li leen fi indi lu mu doon ndaw ñi gën a xamaat it réew mi seen loxo lay mujjee ndax ndaw ñii ngay gis am na ci ay xalif généraux am na ci ay imam am na ci ay président am na ci ay ministre am na ci ay directeur général am na ci ay milliardaire am na ci ñu yorul tuut ñu yor as tuut am na ñu yorul dara kon ndaw da nga koy teel a tàggat ci mbaax tàggat jikkoom xamal ko boppam ndax ay nee na nit boo xamee sa bopp rek xam yàlla man a arafa nafsahu arafa rabbahu kon daal mbégte lañu ñu ñëwee fii ci yoof démb ca kàmbureen ak ca ngor ñaan mboolem xalif généraux yi yàlla bàyyi leen fi nu wér jërëjëf xaw ma amin la ñuy wax waaye bala ñoo daane rek oustaz Pape Hann ñëpp a ko bëgg ndax euh, bëgg Seydina Mouhamed salaas kon duñ la laaj lan mooy sa secret waaye dañ naan la lool tey lan la lay def. waaw bi moom mooy sama dund. waaw nit ku ne ak euh, passion nit ku nekk waaye rasulaay moom mooy tànnal boppam ñi koy tagg moom sallallahu alayhi wa sallam waaye moom maanaam sama sa sama digganteeg moom sax nit ñi xam nañ ko waaye da ci am lu ci lu biire loo xam ni. maak moom rek noo ko xam moom sallallahu alayhi wa sallam mooy sama dund fu ma dem moo ma fa yóbbu ci àdduna bi mooy sama dund lu ma am moom la mooy sama dund nu ma mel moom la amul tànki ginnaaw tànki kanam rek la am waaye di sama xarit moom sallallahu alayhi wa sallam dama ko waxoon ni ko xëlëbta ala xal bi fa sirtu muharraran bi fadlika xat asbaxtu fi naa sayida ma ni ko xëlëbta not nga domine nga yaa yaa domine sama xol waaw waaw fa sirtu muharraran nga mujj sax goreel ma waaye bi fàttali ko ci sa ngëneel yow rasulullahi xat asbaxtu laa mujjee sax man Pape Hann financé ci nit ñi sa yi daal di yaa ma ko def su ma rombee ñu naan ma xaritu Seydina Mouhamed baa nga ne kooku du kenn ku di rasulullahi. Oustaz jaajëfal nañ la merci beaucoup.